Euh, ñu ngi leen di siyaar bu baax euh, sëriñ Modou Guèye bi jiite IP Union Patriotique bëgg sa réew te woon fii tey ci diwaanu Bambug fas yéene sàn sànni ay kàddu waxtaan ak yéen euh, samay kàddu de mooy bi ñu màggalee ba pare dama nekkoon ci ab tournée di yaatal parti bi di xoolaale comme damay yëngu ci wàllu mbay doon xool fan la nawet bi toll ci liñ dem Jolof dem Louga dem Tamba euh, dem Fatick gis tool yi ni mu mel euh, ci liñ mu tournée bi ñu mujjee ko fii nga xam ne fi lañ fekk baax baax fekk ñu fi ñu ñëw fi doon xool tool yi naka la mel loolu mooy waral suñu teewaay fii ci euh, biir gox bi waaw. nawet bi des am nañ ci mbégte bu baax ndax wax dëgg yàlla taw bi arrêté gul mu ngi taw. ñu ngi toll ci récolte ñu ngi góob dugub bi mboq ñor nañ gerte yit mu ngi taw am na ci yaakaar bu baax a baax ñu ñaan suñu borom yeggali ko rek incha allah. Euh, idée boobu partage suma ko ndax mbir boo ci wax da nga koy war a maîtriser li ngay wax teg ko ci xam-xam dafa am ñoo xamee ne maanaam dañuy. dem nekk ay ñoo xam ne porte benn euh, kii di ci wax di ci waxal askan ni te baykat yi boo leen di waxal da nga leen di waxal ci loo xam ne day crédible waaye dem rek ne yow yaa jiite aar sunu moomeel te yow da sa bopp ngay aar ak sa poos ay politiciens ne ci sa ginnaaw ngay waxal baykat yi te la leen di waxal nekkul ndax fi mu ne nii nekk nekkuñ ci jamono yi jiwu jamono yi ndeqi la ne nga naan jiwu yu baaxul te tolluñ ci walu jiwu jiwu moom passé nañ ko. jiw bu baaxu leen yaakaar naa gerte yi niñ mel nii duñ ko mel kon yooyu waxu politicien la ay politicien ñoon ne ci ginnaawam xam nga yooyu it baaxul ay baykat boo leen di waxal dangay seet li nga xamee ne que eh, mooy dëgg nga di leen ko waxal waaw loolu mooy li nga xamee ne que mooy mooy question bi nga may laaj loolu loolu question bi loolu laa ci doon wax. Euh, maanaam. di wax na rek mu gën a góorgóorluwaat ci baykat yi gis nañ effort yi muy def wax dëgg yàlla politique agricole bi ko Macky Sall dénk gis nañ nim nim ci taxawee mu ngi ciy def ay jéego yoo am solo di dimbale baykat yi jege leen xeebul kenn chaque jour mu ngi ci terrain bi mën naa ne ministre l' yi fi jaar yëpp il est maire wax dëgg yàlla borom xam-xam la ku yaru la loolu moom moo gën a faraapi ci moom muy ku yaru ku baax wax dëgg yàlla ñu ngi ko ñaanal maanaam. jafe-jafe nag mënta ñàkk ndax cent pour cent amul ndax mbay mi ren engrais bi xawoon naa am jafe-jafe tuuti eh, biñ ko biñ biñ ko ci attaqué it leeral nañu li li tax loolu lan la moo tax sax ñu koy soutenir xam ne du ci moom dogalu suñ borom la waaw loolu mooy li nga xam ne eh, moom laa ci wax. kenn sama xalaat laa am maanaam sama xalaat laa am gis naa ko mu leeral ma mu xam ne ab baykat laa ci terrain bi laa ne samay mbokk yu ay baykat lañu mu ne ma nag loo ci gis na ko ci lu baax nañ ko partage ndax sénégalais laa ne maa ci terrain bi bu dee loo xam ne du noonu ma ma wax ko ko mu jëm ci wut ay saafara ndax euh, joxe nañ joxe nañ jiw bi tracteurs yi joxe nañ ko seetaan nañ ko ci tele bi ñëpp gis nañ tracteurs yi am na ñu ci am fii ci gox bi ñoo xam ne xam naa leen kon nag loolu dañ ko gën a encouragé bu baax a baax di ko ñaanal ko yarula la borom xam-xam la te bëgg na li may def fan yii mu ngi woon ci tool yi sëñ Habib si moom sëñ Mansour fii ci Tivaouane chaque jour mu ngi ci terrain bi kon kooku dañ ko saluer ñaanal ko waaye Eh, di demandé nañ ko dàq ak yooyu loolu loolu loolu defu fi luñ koy dàq ñi koy def ay politiciens ñoo ne ci seen ginnaaw tax xam nañ leen daan daan daan daañu leen danoo si bu baax. ci njaayam gerte mi gis nañ ne bi waxatuñu parce que mbay jiw njaay la ñuy jëm commercialisation comme ni ñu ko waxee mooy njaay mi jënd meeg njaay loo ci wax ci marché bi xam ne ñu mën a ñëw loolu euh, bu bu dee mooy li gën gën ci baykat yi moom nañ ko ibil seen waay bu dee mooy li gën ci ñoom ndax béykat yi fi ne dañoo war a xool li gën ci ñoom ñu defal leen ko see xool mm, prix gerte bu baax ñu jëndal leen ko ndax sonn nañu te mbay daa métti nuñ ko mën a euh, nu prix gerte bi nu mu gën a baaxee état nag mooy dogal du ministre bi mooy dogal moom bu soñoon ñu jëndee prix gerte bi 1000 francs waaye nag du mooy dogal loolu nag ñu xamee ko noonu waaw. beneen mbir a sonal waa Lour xam ne tey jaar say mbokk di nekk lu xam ne fu nekk jooj jooj jooytu nañ ko fa mais ah, am ci aw naqar am naa ci naqar bu mu méttee métti ndax euh, samay tànk li ko gën a sabab loolu la ndax 2012 ba léegi Macky Sall heure bu ñu fi wootee moom mu gagné fi 80 pour cent askan wi desaluñ ko dara jox nañ ko lépp mën naa ne fii opposant amu fi waaye politiciens yi dox digganteem ak askan wi ñooy ñoo ñoo fa di war askan wi bu ñu demee ci seen bopp lañ ne li ñuy wax gëmuñu ci dara ñoo ñoo ñoo ñoo war a askani maanaam li ne fii waxuñu ko Macky Sall tey intermédiaire yu mu doxal seen ndig ñoom maanaam duñ niti dara da leen a da leen a war a ñoom ñëpp xam ne nekk luñ ko fi askan wi ko bëgg mu fii gagné waaye du du seen liggéey kon na mu def mu respecté askan wi fi mooy li nga xamee ne si moom laa koy digal yoon yu na ko defar ay otong fii daanu ñii seen tànk ngi dam ñii ñu ngi fii dee te ay nit fi dëkk kon nag cër biñ ko delloo kóllëre goog ne leen ko Macky Sall delloo bi mu ñëwee Kaffrine mu ngi ci prononcé ne day defar yoon wi nañu yebal waa Assurut ñu ñëw defar yoon wi ndax ay nit fi dëkk loolu mooy yoon. ma ngi dañoo nekk ci ab coalition nag ab coalition lañ nekk coalition bi sëñ bi xam na ko daanaka du jël ma koy tudd contacté nañ ma maa ngi dem ci réunion ya ba sama candidature Koungheul euh, annoncé naa ko fii moom fi la dëkk waaye dafa am ñëw fii laaj ñoo xam ne dama leen a jege mënuma xëcc ñoom Malle Sarr Pape Top waa ji nekk euh, Pire mënumaa ne fii di xëcc ak ñoom te ñoom doomi dëkk bi la su ma leen mënee soutenir bañ jo euh, bañ jot ci maire bi kum ci mën a doon baax na na doon doomu dëkk bi boo ko defee man su ma mënee laaj conseil départemental bi su ko mënee laaj ma laaj ko jàppale leen pour loolu man maa soutenir ci loolu ma def ko moom daal damay fexe soutenir la looloo waral sama candidat fii ci Koungheul foofu moom awma fa ku may may dara ndax ña fa ne moom il est temps ñu jógee fa ñoom ñoom nag ñoo ci yem ndax ka fa ne war na li mu mënee am na keneen kuy laaj kooka moom daanaka ab français la dëkkul ci dëkk makee ko fi indi jox ko deesee keneen ki ay waxam jarul dóor say doom keneen ki jigéen la ku defarul sa kër bàyyi mënoo defar Koungheul kon nag moo tax ma bëgg jël Koungheul teg ko ci raay bi